Feuz waaye Feuz it mooy Momo mhm. ñëwal leen ci lu bees d'habitude dama leen koy wax ne foo leen bëggee lu bees rek da ngeen di jubal si fii ci télé ci heure bi ci waxtu bi di heure bu baax bi mhm. euh, ñu leen koy jox ci heure bi bi mu jotee di leen koy joxit mu leer nañ tam waaw mu mu mu ngi noonu euh, euh, usman mhm. xam naa dañuy dem rési ñu won ñu élément wu gënte waali sekk ak Sidi Diop wala ma bàyyi la rek nga focus ci ndax yow xam nga lépp yaakaar naa coow laa ngay continuer di wulee ñaay mm-hmm. eh, ndax kii ngi tëgg feek dañoo bokk dat loolu nag problème la nag mm-hmm. loolu problème la de mm-hmm. Waly Seck <laughs> ak Sidi Diop bokku dat bu ñuy tëgg loolu problème la eh, xam naa bu fekkee am nañ élément dañ koy xool dellu si waat annonce bi voilà mu ngi noonu gis nga ñoom ñaar of June Wally Ballago Seck di leen jox daje ànd ceeg Warandaan ànd ceeg problème Cisco et gars yi event bi event bu clear war a yëngal dama war a gis sama community mooy Gambian people African people Senegalese people gars yi ma ngi leen di call on the 29 of June Wally Ballago Seck ak Warandaan fan lay xew Oslo incha allah. Euh, noré ni mu ngi noonu euh, gis nañu Wally euh, macha allah li ma la wax léegi rek mhm. moom mooy ki nga xam ne bu coowee coow lu bëri waaye bu coowul coow lu bëri mhm. ndax moom ak Sidi Diop dañoo bokk dat loolu nag mhm. day indi problème parce que nag kenn kenn ku nekk sa entourage ku nekk dina génn wax li may wax rek comme Sénégal moom dañoo yaakaar ne moom coow du fi jóg fi mu ne ku nekk génn di wax ku ci mel ne ay barito ñoom ñëpp ñi ngi génn ku nekk di wax nee na dañoo soxor xaw ma la nag lan léegi nag yow nak nga gisee loolu noo rëy ni waaw Feuz. Mhm. Wally Seck Wally sekk la. Mhm. Sidi Diop di Diop la. ah ñoom ñaar Sidi Diop du Wally Wally du Sidi Diop. déedéet ñoom ñaar amul kii kii kii. ma mooy Wally mooy mooy. Wally loolu amul ko ku ko koo dégg mu koy wax nee ko da ngay fen te du dëgg ndax gëmuñu ko. slogan boobu nag lañu ñu war a continuer. ñëpp ñëpp nekk benn slogan boobu amul. bu amee it amul ci Wally Seck ak Sidi Diop nañ waxante dëgg te yàlla rek. ah est-ce que nekkul sa genre ñoo bëgg a loolu. Waly Seck Waly Seck la. Mhm. Sidi Diop Sidi jóob la. Mm. Waly Seck mu ngi ak waa Ramadaan ñu naan leen faramaare nii. nekk ci seen ruq di liggéey. Mhm. Sidi Diop mu ngi ak mañu Subatel nekk ak waa Subatel musique di liggéey. ku ci nekk da am sa liggéey di ko liggéey. kan mooy Waly Seck mooy doomu jàgg ak coon. kan mooy Wally Seck mooy chanteur du peuple kan mooy Wally Seck mooy ki sénégalais yi bëgg. Mhm. yàgg naa fi leeral lan mooy chanteur du peuple chanteur du peuple nekkul ni da ngaa dàq woy Sénégal fii suñu peuple waaye yow la ñuy consommer. moom lañ bëgg. te yàlla dogal na xale yi lu ci bëri Wally Seck lañ bëgg. Mhm. mu am nag lu am ba des. Mhm. naam ku nekk it xam na ni Sidy Diop du yaafuus du yaafuusi kenn. ndax de Sinapsat. à jaagu mbaas. de Diago Mbaas mhm. a a a dem Saalum lan mooy loolu Ousmane de Dia si Sidy Diop moo fi a ah, <laughs> kuku kuku ñëw def Diago Mbaas woyaat fi Saalum Saalum yi woy fi Saalum Saalum yi mhm. woy fi leneen la ne leen Sidy Diop lu mu génne mu cartonné tey Ousmane Saalum Saalum la waaw pire mhm. lu mu génne mu cartonné macha allah. waaye li sekk doon koo xamante ni lu mu génne mu cartonné. dëgg la yàllaa ko def. muy ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk am bis. Mhm. ku ci nekk am nooy dundee ku ci nekk am nooy gisee. Mhm. Sidi Diop moo am bisam bu leer àdduna. muy le vingt neuf juin war tëgg Zénith. waaw Sidi Diop à Zénith. Mhm. ñëpp di ko wàcc. ñëpp gëm li naan projet Sidi Diop à Zénith projet bi sénégalais yi gëm ko. Mhm. te bosu Sidi job la. di ko dund. Mhm. di ko cons. Mhm. mu jël ay ténor jaglal leen bis bi ku ci mel ni Viviane Chidid Youssou Ndour Baba Maal. Sidiki Diabaté. waaw moom Sidi. waaw. kon xam nga ni mais Sidiki Diabaté xaritu Wally Seck la de. xaritu Wally la waaye xaritu Sidi Diop la tamit. moo tax ma ne la Sidi mooy waali waali mooy. Sidi déedéet Sidi du waali waali du Sidi loolu mënta sax nekk nag du benn. Hmm. kii am na karaw kii amul karaw. yow yaa ngi nii faramaren nga te yow Matar Diop suba teel rek nga bëgg. bo Matar suba teel. waaw Sidi Diop nekk Sidi Diop nekkul ci moom. nekk maanaam nekk bëgg Matar Diop. suba teel maanaam yow bëgg Matar Diop suba teel xam nga loolu taxul ma ne damaa nekk suba teel wala Sidi <laughs> déedéet Matar Diop suba teel. xamuma xamuma ko amul sama numéro amuma numéro. mais da nga ko bëgg. parce que geste yu rafet yi ma gis muy def mhm. mooy ni ma bëggee Doro Gueye te xamuma ko. ko mooy ni ma bëggee. Elimane Lam te xamuma ko. parce que mhm. seen geste yu rafet li ñuy def. Mhm. man moo ma intéressé te moo ma ñor. ok noonu la demee. Wally sekk amoon na pause ñu koy jaalaat waajuramu jigéen. ñëpp naan Wally bàyyi na woy ak bàyyiwut woy xale yëpp maase def lu rafet mooy soxna soxna kinne bi mu làqoo mhm. déggatoo benn gone gu tëgg mhm. ñoom ñëpp a posoon ñoom ñëpp dañoo toog ay diir ba ku ciy tëggaat 14 février nga tàmbali muy Sidi Diop ay Ibro Naajo ak keneen ak keneen ñëpp pose mhm. mel ni ku too toogoon doon déglu Waly Balago Seck ñu gis ni loolu am na te loolu dem na loolu lu Sidi Diop def bés artiste yu bëri ma jam leen man baaraamu tuuma ndax gisaguma ku ci jóg mhm. appuyé Sidi Diop ci loolu noonu waaw mhm. xam nga maanaam Sidi Diop mhm. bu buy dem Zénith waaw Sidi Diop bu demee Zénith am fa ndam ndami dëgg la Sidi Diop bu demee Zénith def fa lu taw féexe senegal Sénégal la Sidi bu demee feneen ak feneen am fa lu lu kenn amul indiwaat ko ci réew mi muy ndam Sénégal la comme ni ko waali lu Sénégal ki gañ niñ supporté woon Wally support ko Pape Diouf support ko keneen ak keneen ak keneen mhm. bisu Sidi Diop bi noonu lañ ko waroon jàppee support ko d'accord mu dem àndal mhm. te gëm naa ni sax nag insha allahu rabbi mhm. le vingt neuf juin waaw bu nu yàlla may bakkat ak fet kee Sidi Diop dina def doom zénith waaw mais ñoom ñaar tamit dañ naan ñaari kóoy du ñu bokk mbalka waaw est-ce que normal na ñoom ñaar ñu bokk benn date di war a tëgg Hmm. waaw xam nga Sidi Diop dañu bokk fu ñuy tëggee jàpp ñëpp dégg ko. kon yow da nga bëgg ne waal dafa dafa bëgg a tooñ. xaw ma daa tooñ xaw ma tooñu te tooñam it lijjantu moom. te hmm. góoma ni sax daa tooñ ndax ku ci nekk da sa staff hmm. ko nee da ngay tëgg le 29. waaw munu ci dara. dëgg la ne ko fee ngay tëggee le 29. mais nag Sidi njëkk a jàpp date bi nag Sidi bu njëkkee jàpp fii da date date wa dataama waaye ku ci nekk am nga saw data tamit. waaw. <laughs> ku nekk ku nekk am nga ko. da waaw mais nag Ousmane nag da ngay àtte dëgg gis nga gémmiñ bu waxul dëgg. waaw wax leneen lu euh, yow yow yaa waxal sa bopp ne Sidi moo njëkk jàpp date bi. waaw kon Waly amul pour di jàppaat date boobu war a bokk ak Sidi Diop. kon loolu am na lu nekk ci suuf te waxuñu. non non Waly jàppul date. kan moo ko jàpp. Waly staff may jàpp date. tëdd waaw waaw loolu laa la wax. waaw mais Waly moom miy wëy. waaw même bu waa staff bi jàppee loolu Waly war na mën na leen mënu ma tëgg jour bi parce que sama rakk ji daf ciy tëgg muy Sidi Diop dara sëw bi daa am rakk ak mag ak papa ak ñoo bokk duus bi jonko na jug ma jonko kon waale du siidu siidu du waale yow soo bis bu dee say anglais ga ku nekk da ngay catu bàyyi ko fan <laughs> non ku ci nekk da nga wàccee say sa audience ngay wër man Ousmane yow xaw ma foo far non non lu leer laa la wax soo bis duusu cabinet la waaw ku nekk foo Baba Ndiaye ngay wër. waaw da lijjanti sa bopp rek de. ku nekk noo Baba Ndiaye ngay lijjanti de. d'accord soo bis loolu la. d'accord. Waly Seck hmm. Waly Seck la Sidi Diop Sidi Diop la Waly Seck amul lu muy jàpp dat ne damay def da Waly dañ koy jàppal dat nga ko joué lu joué tey ànd nga ci ñoom ñaar ñu bokk benn dat méttiwul hmm. ñuy consoilé dañuy consoilé métti na de parce que leneen mën na fa am baali Sidi Diop dañuy baali Sidi léegi nag naa fekk ak seytaan yi ci génn di wax di xasaate artistes yi ñii di wax ci ñee ñii di wax ci ñee ñoom pour lan ay suqu leen toppaale moo leen yóbbu yow ngay wax seytaane bari baritoo ngay waxal baritoo bu ma doon wax ak moom wax ndax baritoo wax xawma ma parce que moom moo wax xamuma ko mhm. keneen ak keneen ku wax na ok d'accord keneen ak keneen ku na affaire def xam nga li tax ma xam ne yow seytaane nga waaw man ba ma tijjee dama ne waale mooy siidi siidi mooy waale yow nga ne ma déedéet. parce que Wally du Sidi Sidi du Wally. waaw xam nga bu ñëpp defee na yow. ñun Ousmane danga may may danga may may. Sidi du Wally bokkuñu. may may bokkuñu. su ñëpp defee comme yow jàmm du am foofu mais bu yéen ñëpp waroon a jàpp ne Wally mii kat Sidi frère am la euh, nañ ko def rek ne Wally mooy Sidi Sidi mooy Wally kon jàmm mën na am seen diggante mais buñ même buñ ko bëggee ñoom ñaar yéen ñi nekk ci ginnaaw yéen a dul bàyyi noonu. lu tax déedéet Wally du Sidi Sidi du Wally nee naa la ñu ngi soo dus nekk bu dee duusu cabinet nekk da ngay xool noo Baaba Hmm. ku nekk boo ñambalee loo fa bàyyi ngay wër te dem sa yoon. soo bis bii ni ko Sénégal yi defee du mbokk. ok duma la lambi golo la ku jug daanu. golo yaa ko moom. ku mën sa morom duma la ñuy def gindaan gindaan rantal gindaan galañ boobu lañ koy tëddee ñoom <laughs> nekkul fi di tiit ak di crainte ak di bàyyi xel kii que ce soit am. d'accord d'accord kon ñoom ñaar ñoo bokk dat bi. ñoom ñaar ñoo bokk dat wi nañ xaajoo dat wi. kon dat bi amu ci kenn ku ci moom dat bi. da dat bi dat bi mënut ñoom ñaar ñëpp seen data. Ah. <laughs> ñoom ñaar ñëpp ko am. d'accord ñoom ñaar ñëpp ko jàpp. d'accord ku ci nekk jàpp nga ko daal. kii dem fii. Mhm. bokkut ak kii dem fee kii dem fee bokkut ak kuy dem.